Madame Laetitia Kozlova ñu lay nuyu Dakar au fil des arts di am seexi documentation sonore ngeen door ko fukki fan ci weeru octobre bi génn ndax mën nga del si nag ci bile projet. dans le cadre de cet atelier d'écoute. ci atelier bi nag dañ ko jagleel déglu ak production forme yi ak format rajo yi yi nga xam ni dañoo gudd. mën nañ dem ba 30 à 40 minutes loo xam ne dafa raar pour ñu euh, gis ko ci rajo projet bi euh, nag maa ngi ci bëgg wane ndakaaru neexaayam ci juróom benn épisode ca institut français bu ndakaaru lu am solo la euh, dégg-déggu ndakaaru lu jëm ci histoire ak art ñu jël exemple lu juróom benn quartier ci biir capitalu Sénégal quartier de la la Médina ne s'appelait pas Médina, elle s'appelait Tilène. Tilène, c'est le nom du chacal. Et comme euh, cet endroit était peuplé de. ci bile balade euh, sonore ngeen di wane am xar kanamuk ndakaaru eh bi nga xam te ne euh, changé na biñ koy sanc ba tey ji c'est donc projet boobu noo leen ko développé. alors on y entend en effet des éléments d'histoire de chaque quartier. foofa nag dinañ ci dégg histoire quartier bu ne waaye du fa yam ndax dinañu ci dégg. ñiy doxal aada ak cosaan ci quartier bu ne ak mbumbaayu ndakaaru xarkanamu ndakaaru liñ ci mën a jàng bëri na ambiance ndakaaru ñun dañ ciy bàyyi xel bu baax. donc nous y avons porté beaucoup d'attention. askanuk Ndakaaru nan lañu ak seen documentation bi. La série Dakar au fil des arts a été lancée bi nag ma duppeeku Ndakaaru lancé nañ ko alxames bi ñu génn fële ci institut bu Ndakaaru. déglu nañ sax band annonce bi foofu ca institut français euh, mu diire euh, juróomi simili institut bi nag euh, baaxee ñu juróom benn place déglukaay mu méngoo ak juróom benn yu ndakaaru yi ñu tànn di itam juróom benn épisode yi nekk ci série bi lu amoon solo la nag ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon liggéey bi juróom benn journaliste yi ca bokkoon ak man mii nga xam ne maa nga woon ca biir ñu doxal lépp rek ba liggéey bi yemb kontaan nañ trop ci gis auditeurs yi ndax lu jëm ci wàllum rajo moom da ngay liggéey rek euh, waaye doo gisanteek ñi lay déglu. personne à qui l'on parle dans un micro sur ce qu'il venait d'écouter. la yee ci Dakar waay. Cette expérience a été saluée. Ce qu'on a ressenti, euh, c'est d'abord euh, beaucoup d'enthousiasme. ñëpp ñoo rafetlu mbir mi. am nañ aussi nameel gu ñu namoon Dakar gu njëkk ga. yëg yooyu yëpp nag lu naturel la sunu système bi nag pare nañ pour partager ko képp. ndax nga mun ci jëriñu. La lutte est au Sénégal ce que le basketball est aux États-Unis. Dans ce pays, un quartier a marqué les beaux jours de la lutte, c'est Fass. léegi yoof ñuy wóol lim kontaan nañ trop ci invitation bi et pare nañ aussi pour liggéey ak rajo Sénégal. Une bouteille à la mer on serait ravis de collaborer avec la radio nationale euh, belles écoutes merci beaucoup. Oh, oh, oh,